bu mm-hmm. dee da juréef na mm-hmm. kon mu ngoog <laughs> dañ doon njëkkalante de pour xam ne moo waral mu tafa ke ne wali ahaa tey ne aji nekk la ñaar ñaari soxna yi mariama ak asiya fakaarun puukare wa bahjatun ak taar wa baxaw ak leer nga maam xalifa man lu xala xoola fa mu njëkk yoon anta lil kaw ne bahjatun wa baxaw ba léegi mi ngi koy door a baamuwaat waaye tey boo doon seet wayu mu ñu ñu ci ëpp moo tax mu ne Cheikh Diar si day wax loolu wax ne wayu mag ñi moom nit ñi ñu ñuul ko ci liir rek mu yóbbu la ci usloo bu olof mu ne wayu Sénégal yi dafa xeeñ olof ba mooy wayu maam Khalifa rek moo ci xew moo ci xeeñ usloo bu olof hmm, waaw moo tax mu ne war a ab gis na alaamal huda mandargaay may drapeau yu njub nga ko firi wali kulli ardi aji nekk la ñeexal bépp suuf bil bisiri ci samp raayatun drapeau bu mag wali waaw ak drapeau bu ndaw waaye benn bu ci nekk mën nañu ko tuddee moromam dégg nga maanaam juddu gi keroog ba yonent bi juddoo dañoo ay drapeau benn ci kaaba gi benn ci penku benn ci soxu yépp jàkkaarloo ak moom lii lépp nag ay miracle la yu xew ci juddóom ga waaye mu ne nag munu maa wax lépp de suma xayru ma summa xayrul maskuuri topp lu ñu tuddut la min mujisaatin ci mujisa ajisat lottu na xan ixsaayaa walis takk ko bu la gaaw fasaaña waxoon na la lu bari li xew ci ëmb ga ke sampoog drapeau ya ci dikk ak jigéeni xuru ayn ya bàyyi ko aljanat ànd ak sayyidatuna Asiya ak sayyidatuna Maryama ñëw di ndokkeel si soxna si ak ñàkk yëg ak soxna si benn métit ci ëmb ga yàqalul ko dara ak la ca xew lépp maam xalifa nag ne la li ci xew lépp ci ay miracle xajut fi am na ci lu bari yoo xam ne tudduma ko ndax li ci xew lépp lu nit fasaa fasaa mënoo koo takk ba mën a andi de lii ak lii la boo waxee rek foog nga desal ci moo ju sa nag ñaareel dañ ko doon gën di appliqué ci bu ñu yónnee ab yonantu lu mu defati gannaaw ba bu muy génnee àdduna ñu de ko moo ju sa avant ñi koy yónni lu mu defati ñu tuddee ko irhas mooy fondation waaye nag ñaar na man na danañ fekk yónneeguñ ab yonantu lu xew ci moom ñu tuddee ko mojisa moom nga dégg bu séeru ne wa bada séeri deayi mojisaatun te booba yónneeguñ ko kon loolu tamit ñu ne mën nañ mën na ñaari façon yëpp moo tax maam xalifa appliqué loolu ndax mu ne suma xayrul mazkoori topp luñ tuddut la moo min mojisaatin ci mojisa ajasat lottu na xan ixsaayiha walis takk ko al bulagaawu ñu fasaaña bunt boobu moom foofu la jeexee buntam ñetteel bi mooy wulida jureef na al mustafa kuñ tànn bi lis nay ni ci bisab altini fii shaabi abi taalibin ci shaabu abi taalib wa xuqa na alhanaawu ndokkeel yonentoo ngi juddu altine mooy li gën a siiw moo taxoon daana tànn bisab altine di ko xoor saxaaba yi laaj ko ne ko bis yi bëri nañ di lana waral ngay tànn altine di ko woor mu ne zaaka yawmun wulittu fihi da ko bañ ba nakkiiraal ko muy nakkiira goo xam ne ta'zima ko tax a jug mu ne leen bis bu màgg boobu de man nii di wax ak yéen ci laa juddu gane si ci àdduna mi ngi juddoo ñu ne tamit ci place bu ñu tuddee sha'bu abi comme ñu ñëwee ci bëx jotu ñu ne yaayam <clears throat> mi ngi ko ëmb ci jamonoy ayaam ak tashriq mooy fan yi ñuy sànni eh, eh, jamra yi nga xam ne ci lañuy ñuy seel yàpp yi di ko kii muy hadiye yi ci heure boobu ci la juddu am na ñu ne ca jamratul wusta waaye am na ñu wax nag ci yeneen i place ndax boo demee tey ba màkk wetu Kaaba ga dañ la wan kër gi mu juddoo te loolu mu nekk lu siiw a siiw guddi gi tamit nag mi ngi nekk ci diggante ci guddi gannaaw bi guddi gi xaajee kenn ku ci nekk jël barkeem ba ndax fu waxtu nangu ñaan la waxakaa nettali na xaw xawmun aw nit xaw xawmun nit fii daari ibnu yusufa am na ñu ne mu ngi juddoo kër ibnu yusufa kër goo xam ne dañ koy dàkkantalee Muhammad ibnu Yusufa di àq di mbokkam xajaaj waaye ba tey aw la da mi wala fu ñu tuddee radmu am na ñu ne radmu la juddoo xaala ko wax na ko xudamaa wu ñu jiituñu boo demee ci xaam Mustafa ne mu place la boo xam ne dañ koy askane bani jumuhin ñi nga xam ne ñoo nekk ñi di di bani quraat ñun wax na ñoo moom boobu dégg nga wa bada feeñ na lil wujoodi ñeel mbindeef yi ci weeru gàmmu almaymuni guñ ka kan mooy faayil ji almitaaw mm, mooy faayilam su ko defee ci la yonent bi judd kon yonent bi judd na ci weeru gàmmu wuñ barkeel wi di rabiil awal a dégg kam fa xaarin bëri na puukare xawaahu làq na ko moom weer woowu ala suhóori ci weer yi weeru rabi al ci la jëlee place jël daraja di sangi weer yi ngir li ci sayduna muhammad ni sangi mbindeef yi juddoo wali ivril la ñeel na avril mafxarun puukare wa baawoog taar su fekkee da koy seet nag ci weeru tubaab ñaar fukki fan ci avril lay toppee kon avril am na daraja ju rëy ci suhuuri shamsiya yi comme ni rabiul awal amee daraja ju rëy ci suhuurul xamariya yi waaw <coughs> waxalaa kawe na jamono jamono jamuy juddu xafra guddi bu ñu tuddee xafra ñetti biddi yu ndaw la ci wàccuwaayu weer wi lañ nekk foofu nag mooy wàcc mooy mooy juddu waayu yonantu yëpp yonantu yëpp jamono joj la ñuy juddu la wàcc ya lama li nga xam ne dëppoog nag moom ndax juddu yonantoo ngi dëppoog euh, mana manzilam waaye wafaaqati kawe na ashafaawu sayyidatuna ashafaawu safaawu mooy yaayi abdurahman ibnu awfu nga xam ne kenn la ci fukki saxaaba yi yonantu bi dëhaloon aljana waaye kenn la ci ñu ëpp alal ci saxaabaay sayduna muhammad yi sallallahu alayhi wa sallam kooku bi yonantu bi juddoo rek mooy ki ko njëkk moo tax moom tamit am na dara ju rëy li ci bëri nag ci kanam moo ñu koy nettalil ni ki yoorug biddiw yeeg leeraay ak màkka gaag bagaan giñ ko dëppoon mu xarak nen gu ko yeb maamam abdul mutalib yenn woon di wër ak moom kaaba gaag li ci bëri sayyidatuna safaawu moo ñu ko nettali moo ko for waaw mooy koo xam bu juddoo moo daan for lii moom moo ko for <coughs> maqdamul fiili dikk ñëw dikkwaayu ñooy wax baxda xam si na gannaaw juróom fukk yow man ci fan minu ci moom xat bu sirat la bigale fii ci moom bu saraaw way bég la ja la xat ba sarat la bigal bii ci moom bu saraaw way bég la ja yonentu bi sallallahu alayhi euh, dikk ak abrahatu mu siiw moomu àndoon ak ñayam ya ñëwoon ne day toj ci kaaba ga te moom ñay wi mu waroon mi ngi tuddoon Mahmoud kun yetu ñay wa tuddoon Abil Abbas lañ ko daan dàkkantalee nga xam ne boo demee ci alam tara kayfa faala rabbuka da nga ci am lu doy ba mu ñëwee ba ci waadi muhassar foofu rek la ko picc yi fekk fa la campé woon di nangu gëléemi jàmbur yeeg di jël xari jàmbur yi nekk foofa tabaarakallaahu ba Abdul Mutalib fekk ko fa mu jàppoon ay xaram mu ñëw ko ne waaw yow lan moo waral li may jug nii ne may toj néeg nga xam ne sa teraangaay maam say baay ci lañ nekk amoo dara looy laaj lu dul ay xar yu ñàkk solo yi ak ay giléem abdul mutalib ne ko man loolu laa moom nii bi ngay toje am na borom inna lil inna lil rabbi inna lil bayti rabban sawfa yaxubuhu comme ni ko Seydil Hadji Malick nettali ca xilaasam ba <coughs> léegi nag loolu bi mu xewee ci xisa bu gudd ñu bari xam nañ ko boo delloo ci gàmmukat ñi gën koo saraxal la ko nga xam ne ci lañ ko ci la ko gaa yi sànni picc ay foofu yàlla hebal ay picc ñu sànni ko ba mu mujj juróom fukki fan lañ ci teg rek abra maanaam yonentu yàlla Muhammad judd yàlla wax na ne alam tara xanaa yëggut sa xam yow yonentu bi kay fa faala naka la def ko sa borom bi ashaabil fiili ca borom ñay ya alam alam yajal ndax dafa defut kayduhum seen pexe ma te moo doon pexem ñëw toj kaaba gi la bëggoon fii tadlilin ci ak sooy wa arsala mu hebal alayhim ci ñoom tayran njanaaw ay njanaaw njanaaw la yu def ay conva tarmihim ñu leen di sànni bi xijaaratin ci doj yoo xam ne min si jiir ñu ngi ko jëlee ci safara toj nag bu dalee ci bopp wàccee ci suuf bu dalee ci gannaaw génnee ci ca biir ba bu génnee ci bu dalee ci biir génnee ca gannaaw fekk moom fii rek moo ko yóbbu ci loolu daan toog rek nit ñi di ko romb mu fekk moom ma nga woon Éthiopie Habasha nit ñi di ko romb ne fu ñu jëm nii mu ne moom kat nit ñi dañuy dem di wëri dañuy dem di aji ak Kaaba mu tabax Kaaba gu rafet léegi nag ne day dem toji kaaba googa pour bëgg nit ñi aj ci kaaba googa léegi nag benn arab daay ko màkk ñëw ñu wax ko ko rek mu mer dugg ca kaaba ak abraha ga rek kabine fa léegi nag diw ko ci biti kaaba gi yépp nag abraha ne ah, du ma xeex ak moom duma ko dóor du ma ko tëj dama doon waaj waaye jàpp naa bis li ma bëgg a def rek moo ko naqari waaye nag ba mu demee ba yegg ci waaj mu xasar ci la ko yàlla nag ebal ay picc yi dal ci kawam léegi nag xadiyatu bu siiw boobu bi mu xewee juróom fukki fan lañ ci teg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam juddu waaw fii zamanil maliki ci jamonoy buur ba Kisra booba maanaam nguuru Kisra ñooy état bi gën a rëy ci àdduna bi nga xam ne tey mooy Bagdad booba buur bu ñu tuddee Anushirwaana moo fa nekk man mooy ki xam ne man mooy ki nga xam ne am ma daj na àdduloo mandoom nga wala wafaawu matal kóllëre ga ku mënoon a matal la nit la woon koo xam ne tamit ku ku mandu woon wax nañ ne yonent bi daana wax ne man de juréef nañ ma ci jamonoy buur boo xam ne bu maandoo maandoo maandu la waaw dégg nga euh, muy anu sirwaan buur bu maandu la kon ndeysaanam bi yonent bi amee juróom-ñetti at sax ci la génn àdduna moom ak maamam maami yonent bi ñoom bokk ñoo bokk benn at mu génn àdduna ak xaatim tayi ñoom ñett ñoo ñoo ko bokkale moo tax mu ne fii zamaanil maliki ci jamonoy buur ba Kisra buuru Kisra ba anu sirwaana wa man mooy ki nga xam ne am ma daj na xaddulu wa mandoom ga wal wafaawu matal kóllëreem ga ku baax la woon su ko defee nag léegi ñoom nag xam nga buur la ñoon boo xam ne buur ñoom wax naa la ne ñoom ñooy ñooy Iraq lañ nekk comme ni ko seex na tijaan yi tuddee ci xam hamsiyam bëre malikul furs ci Iraq euh, malik bi ci Iraq dañ daan tuddee ku fa nekk buur rek comme dañ dañoo baaxoon képp ku nekk buur foofa rek dañ lay tuddee maanaam Kisra ak noo mën a tudd comme ni nga xamee ne ñu nekk buur ca Saam ak yooyu ci banu Israël leen tuddee jabaabirata yi comme ni nga xamee ne ñu nekkoon fële buur ca Ruum dañ leen tuddee Hiraq la te dégg ak Qaysar te noonu dafa nekkoon loo xam ne lu wër la ku nekk ñu nekkaan tamit buur ca Yaman dañ leen daan tuddee bi maanaa taba taba baxata ñu nekkoon buur ca Turki ca seen réew tuddee Xaaxaan ñu nekkoon buur ca Éthiopie Habas ak lépp lu war a foofa ci réewi Soudan yi dañ daan tuddee najaas yi ak noo mën a tudd loolu maanaam boo demee ci saraxu Cheikh na Tidiane ba andi na ko waaye boo demee ci Ibnu Duraydu déedéet da daaliya moom tamit andi na ko ca sarxa ba buur yooyu yëpp dégg nga <coughs> tubaa jo yaa ngi ko ci alquran sax talaa fenk na almustari bu diw bu ñu tuddee mustari bi taalii saadin ci fenk ak texe janaxat laafal na fii ci moom alaqara bi diw xaqara bu xarraaw bay aji siiw jamono ji yonent bi judd sallallahu alayhi wa sallam booba bi maanaam mustari moo nekk ci diggu asamaan kenn la ci biddiw yi nga xam ne dañuy daw moom nag palaasam mooy juróom-benneeli asamaan la nekk comme ni nga xamee ne Zuhal mi ngi ci juróom-ñaareeli asamaan Mariix nekk ci juróomeel jant bi tiim ñu mi ngi nekk ci ñeenteelu asamaan Zuhratu mi ngi nekk ci ñetteelu asamaan Ataarit mi ngi nekk ci ñaareelu asamaan weer wi nag mu ngi nekk ci asamaan su njëkk si tiim ñu moom la benn waaye di way noonu ne Zuhal nishtara mariixuhu min shamsihi fatazahara li Ataarida maanaam biddiw bu ne ab palaasam comme ni ma ko waxee noonu dégg nga dégg nga dégg nga moo tax mu ne talaa fenk na mustari biddiw mustari bi taalii saadin ci fenk ak texe janaxat laafal na fii ñoom aqrabu aqrabu xaraaw bay aji siiw mu teg ke ne baada malikil askandari ga naa nguur ak askandari ga xaama sintay ni nga def xaama sintay ni waaw kay gannaaw ñaar baax baxda fafrin gannaaw lima fafr te baddaa la feeñ minu ci juddu ga lil kaw ni ñeel mindeef yi wala minu ci yontu bi li kaw ni ñeel mansur gis waaye la laaw bay aji melxati maanaam booba nguuru aska ndar ji am na juróom-ñetti téeméeri at ak juróom-ñett fukk dégg de ak ak ñaar ndax boo jëlee maanaam raayun ji day nekk juróom-ñetti téeméer faa juróom-ñett fukk la nga jël ñaar ji mooy xaama sin tey kon booba seen nguur ga doxagum na ba dawagum lu mat juróom-ñetti téeméeri at ak maanaam juróom-ñett fukk ak ñaar moo tombeeg juddoog Seydunaa Muhammad kon wax na la dat ba ci taarix bi ñu gën a jege muy Abraha wax la ko ci bi gën a sori bi ñu gënoon a xam ci taxaw ak nguur ak askandar ga kii loolu na mi ngi nekk moo tax mu ne baax da mulkil askandar yi laa wax nag gannaaw nguur ak askandar ga bi xilaafin ci wutee fii si nii ci xatam ya waaye waxtaara tànn na za lii nu ñu xel ñi lu moo tax mu daan ci lañ daan ci lañ daan taarixal booba booba ñoom seen mbir mi dem na ca junne maanaam juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk am nañu wax noonu faslin am na ñu jël beneen lim tamit waaye lim bi ma jox la man maam xalifa moo gën a siiw lay la lis na ni guddeeg altine la fii yebbin ci fukk ak ñaar min rabiin ci weeru gàmmu su ko defee léegi xatta jàllal la humee ko am naa walis ñu maanaam bii ci moom xalmaaw lëndëm yi booba loolu la dem dégg nga am nañu bind baax bu fekkee xaful la juróom-ñett téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett moom moom la ñenn ñi bind dégg nga loo teg kaabidan muy aji banque kafoo téenkam la musiran muy aji junjee bi sababati ci baaraam sànneekaay ba li loxol wi jëm ca kaw yi moom allaahu aji kawe la dafa judd rek jël baaraamam bi rek sànni ko ca kaw kiyam bi ak bët ya di wax allahuma rafiqal axla ci lañ xam ne kii mbiram lu kawe lay doon wata dallat yooru na zuuru nujoomi leeri bidiw yi wadda at leer na kullu ardin bépp suuf kamaa yaraakum naka la ko gisee bu saraa way gis ña maanaam foo toll màkk bu la poussière sang gis ko fa lañ toll di seen état su xaysar ya xamidat fay na naaru faarisin safaraaw faaris baxdama taala gannaaw bi nga xamee ne yàgg na ittiraamul tàkk ga laa ñeel safara wa waxaa da ñiis na almaa u ndox ma ca iraq di bu xayrata saawa fële nga xam ne moo doon safara wa di waa di samaawa ñaar yu bee bee ball bii mujj tamit bee bi a yéem mooy la ca bu sëy wax rek fi safara wa faye dafa mel ni ndoxa fa tuuru fi ndox ma ñiisee dafa mel ni safara fa faye ka anna bin naari maa bin naari waaw maa bin maa yi muy barin waaw waraa gis na al mubitaan mubitaan mooy tekki ci luxatul abraniya qaadi seen attekat ba xaylan fas ay fas ay raaban yoo xam ne fasi arab lañ xataat dagg nañ dij la ca mooy atlantique wa fiiha nekk na ca fas ya liwaaw drapeau ay jàmbaar maanaam yu leen war yore drapeau wali abdil masih aji nekk la ñeel abdil masih ngay wax ne waqaala wax na fatixun fatix li abdil masih maa atat li nga xam ne dikk na xam chiq bàyyi ko ci chiq bi ci moom an baaw solo yi chiq mooy ki joxe xibaaru ndox mi abdul masih mooy ki joxe xibaaru safara wa ak la ci xaju xisa bu gudd la nag maanaam keroog bi yonent bi juddoo gàngu naayu kisra ga daanu ba mu def ki bant ak ñeent di ay gexel yu ko téye buur ba dafa tiit woo nag ki nga xam ne mooy mubi daan ba mooy xaadi dëkk ba ëpp fa xam-xam dañ ko ne ko waaw yow moo bisaan luy sa ci lii mu ne ko man daal démb gént naa ay fas yoo xam ne kojug arab la ay jàmbaar war leen di jéggi géej gi di ci la tax ñu ngi yore nag ay drapeau mu ne ko loolu li muy tekki mu ne ko xaw ko de waaye li ma ci mën di waral xew-xew la buy bàyyi ko ci arab yi waaye nag am naa benn mbokk moo xam ne ñu ngi ko tuddee Satiex ku bëri xam-xam la ci mën a gént ma nga ca yaman boo ma yónnee rek bu ko defee man mën naa faa dem laajal la ko li muy ñëw na fekk satiya mi ngi ci xarxarlee dee mu ne moo tax mu ne abdul masih jaa ila satih li jamali darih wa qad arsalaka maliku saasaan li xumoo di niiraan ba xisa ba jeex dana ko indi fii ci sarxa bi léegi nag ci la xippi rek ne ko yow de dañ laa yónni ci man li ma lay xamal daal mooy borom xet wa bu feeñee seen nguur gi di kisra dootu leen ko moomati waaye nag fukki geer yaa ñeent ya fa des li muy tekki mooy fukki buur ak ñeent danañ falwaat bala koo jullit ñee moom ci seeni doole du ko defee nag loolu moo waral moo waral xew-xew bi ak yooyu yëpp nag waaye gis nga ne moom tam mu sant yàlla ne ah loolu kay balaa booba danaa dee sama mbokk yi sama ñëpp dee waaye gis nga ci jamono yonantu bi rek fukki buur yëpp dee nañ fukki buur baak ñeent ñeenteel ba Omar ibnu Xattaab moo ko kuréeta moo ko maanaam toj dëkk ba ba jël mbaxanam ma ma la waxoon dëppal ko suraaqatu ne ko keroog bi ngay dalu yonantu bi ne waxoon na leen waa suraaqa bi may woote na bu heggee Kisra ba jël mbaxanam ma dëppal ko nooy def mu ne loolu dana xam mu ne ko kaay ma dëggal wax yonent bi mu toog ci gàngu naay mu takkal ko lam ya takkal ko mbaxana ma Omar moo déedéet waa Omar moo def loolu maanaam yonentoo yonentoo waxoon loolu suraqatu ba mu koy dabi ca rañaan ga waroon fasam wax yonentu ne woon yonent yonentu bi ne suuf téye ko ba suuf téye ko dañ ca xegg ca waq wa bii mu téyewaat ko ba ci wóom yi bii mu téye ko ba ci biir bi mu ne ko tee ngaa toog nag man lii may xotti bu xeggee ba kisraa ñu jël mbaxanaam buur ba dëppal la ko nooy def ko dana xam ko dana xam waaye yàlla nga ko dëggalee ci jamonoy xilaafa ak Omar ba Omar def loola dégg nga euh, moom nga gis nii gis nga moom ci la ci la ubbi bët yi rek ba mu ñëw da koy fekk muy bëgg a dee dégg na fa fataxa satiix aynayhi suma qaala abdul masiix ata ila satiix dégg nga de ah, ata ila satiix ala jamalil mashiix wa qad awfa ala dariix baasaka maliku saasaan li xumuudi niiraan wa ruya mubidaan ra'a ibalan sahaban taquudu xaylan xiraaban qad qataat dijlata wa intasharat fi biladiha abdulmasih ida zaharat altilawa wa zahara sahibu alxirawa wa faada waadi samawa wa gaada waadi buhayrata sawa di dem lu ko noonu la ko nekk di ko wax ci ci yu neex yooyu yow ñoom dañoo amoon xam-xam sa teex na seex na tijaan yi wax na ne jëmm la woon yoo xam ne amul yax dañ ko daan leem ni ñuy leemee yére yaram wi yëpp bopp bi rek moo ci am yax kàng bi waaye nag daana gis ba gis loo xam ne dafa yéeme Cheikh nag moom moo joxe xibaaru ndox mi moom nag nitu genn wàll la xoon Cheikh Ahmad nee na benn loxo la am genn wàll faar genn tànk lu mel noonu genn wàll genn nga am benn nopp waaye moom tamit kéemaan la woon ci xam-xam dañ ko daan dikkal kon gis nga yàlla lu ne bind na ko moo joxe xibaaru ndox mi ñiis kii moom li joxe gàngunaay di damm di toj muy palais buur bi ak fukki geexet ak ñeent ya ca des mu xam ne ne fukki buur ak ñeentay faluwaat ndox mi niis nag siq leen ci jox xam-xam ne juddoog Seydunaa Muhammad a ko waral loo teg mu ne kusirat tojeef na jaf natun bagaan kafa waxaa bu sàngee nañ ko àll yi ci yonantu bi maam xalifay laaj ne aw xat yekkoonu ndax mën naa nekk xitaawu muur li shams ñaal jant bi déedéet mu ne jant bi ne ku ko mënta muur mënoo muur yonantu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax moo abal jant bi leer li ko waral màkka dañoo baaxoo woon liir bu juddoo bees di guddi duñ ko nangoo for dañ koy dëpp ci bagaan ba bër set ñu door koo for yonent bi judd rek nga dëpp ko ci bagaan ba bagaan nga ñaari ñaari wàll di wax ak ñoom ne yéen a ngi ni jàkkaarloog jant bi mënu leen koo muur di jéem a ma jéem a muur kii te kii moo abal jant bi leer waaw di ko waral nag ñoom tamit dañ daan bagaan ñi koy dëpp lii dañ ci daan gaat nga xam nga bagaan toujours bu añ sottee ci dañuy tibb def ci bagaan door a tibb def ci yeneen bool yi ñu ne nag nañ dëpp bagaan lii de pour gàtt nga ci di tibbee ci moom xel ak xelaat ak njàmbaar ak xam-xam ak tabe ak xel mu rafet yu mel noonu moo taxoon ñu dëpp ko yonent bi maam xalifa ne waqat jaa dikk na ca kanam zikkurun tudd li fathil jinaani ci ubbeeg aljana wata waalaa méngoo nañu daaw woote minal bashiri bàyyi ko ci aji bég la ja maanaam keroog bi yonent bi juddoo dañoo ubbiwaat aljana yokkaat ya te lépp ñu jëlee ko ci taaru sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bég la yi tamit méngoo fu ne ci jaww ji ak ci géej gi ak ci jéeri ji kenn ku nekk ma ngay bégal kam dend ak lam dend ak ne ko xam leen ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam gane si na àdduna maam xalifa ne wali arshi laine ñeel na gàngu naayu kuñ rëbb ka suqootun ak daanu minhu ca juddu ga wataraamat sànneeku na arkaanu ko ponk ya wal wa tabax ba maanaam mën nga ko déggee ci ñaar puwaar ba gàngu naayam nga daanu na mooy pouvoir am daanu na rek sañ kii bi mu amoon force bi mu amoon keroog ba yenantu bi juddoo rek keroog la daanu bu doon nag tabax la jàppal ne néeg néeg la woon boo xam ne keno ya ak terrasse ba lépp bokk na màbb waaye du tabax nag dafa bëgg a wax ne pouvoir daanu na rek ma xam ne amatu benn sañ-sañ ndax ki ko war a kii suul mooy sayyiduna muhammad sallallahu alayhi mu teg ci nag ne manaa tere na al jinna jinne ya suhubun ay jum tarmiha yooyu dana sànni leen bihaa ci jum ya umanaaw yuñ xóolu ya muy malaaka yuñ xóolu ya min maqaa'idi sam'in bàyyee ko ci togg sàccuwaayu déglu bu njëkk ba jinne yi buñ taxawaan kenn day taxaw keneen taxaw ca bopp ba keneen taxaw keneen taxaw ca bopp ba bañ yegg ca juróom-ñaareeli asamaan buñ déggee benn xibaar yokku ca juróom-ñeenti xibaar andil ko bu xaaba yi ci ay san moo taxoon bu xaaba yi am seeni gisaane yi waaye bu xaaba yu mujj yi ñu njëkk yi ñoo ëpp xam-xam léegi nag bi yonentu yàlla Isa dafa judd rek ñu tere leen ba mënuñoo passé ñeenteelu asamaan waaye mën nañoo dem ba ci troisième bi léegi nag booba nag bu ñu déggee benn xibaar dañ ci yokk juróom-ñeent fukki fen lu ko defee ak juróom-ñeent yóbbul ko seen buxaaba yi yonentu bi nag dafa judd rek dara xewut judd rek la def ñoom mënatuñoo yegg premier asamaan bu ñu bu ñu bëggee yegg rek ay missile moo leen fay fekk du mooy bu la dalee direct da dee bu la kosee da ngay naax dootoo amati xel mooy soppeeku kondrong yi di sàmmal jinne yi jinne lañ mais misil yooyu moo leen dal ñii mu dal seen i maam ñu juddu ca su ko defee léegi duñu amati xel jinne yi ñoo leen di sàmmaloo seen nag ya léegi na loolu fa ñoo ñoo ko waxal seen bopp nag bi yonent bi demee nag ba ñu yónni ko nag ba mu jege ñu yónni ko ñu renforcé waat asamaan si ci ay gardien maanaam bu mu gën a joxaat leen ngànnaay yu gën a ñaw moom nga dégg ñu ne inna kunna naquudu minha maqaa'ida li sam'i waaye fa man yastami' laana yajid lahu shihaban rafadan waaw ñu ne dañ daan yéeg ba ci asamaan di laal ko waaye wa inaa lamasnaa samaa fa wajadnaahaa muli'at harasan shadiidan wa suhuban léegi noonu lañ daan demee maam xalifa ne kon mën naa tere na suhubun ay jum mooy faayil ji lu ko tere jinne jinne ya ci lan min maqaa'idi samin ci jëkk waayu sàcc waayu déglu moo waral tan yaa leen sànni bi yaa ki jëmee omanaaw yuñ xóoluña dana ñu nettali na bi muy jàngal bàyyi laa ibrahima bayti bi ne mën naa na jinna bàyyi laa ibrahima ne mën naa xam nga boo jàngee naxu bees da ngay foone rek fu faaxil fexal ñëwee rek faaxil la ci war a tegu bu foone góor gi dafa xaw a kii maam xalifa ne jinna mu ne jinnu mu ne ko faayil jàng ca kanam suufu bun ji mooy faayil ji <laughs> wallaahi ndeysaanam mu ne ko suufu bun ji mooy faayil ji ma ngi ca kanam léegi boo da ko doon jàngal mu ne ak sabat naat na ardu màkkata suufu màkka yàlla yéemal is wuri da ba jureef Moustapha kuñ tànn ka wa zala dañ na xanaawu coono màkka nag ndeysaan ñoo gënoon a bekkoor amuñ woon dara waaye keroog ba Seydunaa Muhammad gane ci àdduna ah, at moomu nag wax dëgg yàlla lépp ne gàññi lépp ne nàññi lu waaye ji am nga fukkam gerte am na ki waxin tàndarma ji bari dugub ji bari lépp bëri ba ku bayitoon da ngay wax ne su ma yëgoon bay te njëkk loolu dañu amuñu woon dara samsu xaqin moom jantab dëgg la laa yem tëri du werante fi la ca kawayam ga xayru man dul koo xam ne xal bu ko xolam baa àll yi nekk na ca xisaawu muraay yonentu jantab dëgg la loo bañ bañ mu tiim la jantab dëgg la foo ne jàkk gis ko kenn mënu ci dara su ko defee nag ku sa xol am muuraay rek yaa koy ñàkk gis sallallahu alayhi wa sallam waqad tadaa màbbu na al awsaanu xiram yi xiina badat waxtu wa feeñee samsu samsul huda jëntab njub ñu ne ko lu tax mu ne is ngir si lu dana wuññi diyaa u leer salaama lëndëm keroog ba yonantu bi ñëwee rek la mboolem xiram yi ñu fi nekkoon samp ko di ko jaamu ay jug ñooy bàyyee ko ca kawar dal ci bopp xiram yépp seey kaaba gi fekkoon na fi lu mat juróom ñetti téeméeri xiram ak juróom-benn fukk keroog ci guddi gi yëpp a fanaanoo kii see yëpp muy tekki ne kii indi dëgg moo ñëw maam xalifa ne leer la leer nag bu ñëwee rek lëndëm dàqu ndax ñoom lëndëm rek lañu ñu xool saqata daanu na li ma doon nettali ci xisa ba surafatun ay gexet min iwaani kisra ci gàngu naay kisra ga xale ci juddu ba bi qadriha kem la fa des ta gexet ya de umaraaw mooy buulee fa war a faluwaat gexet ya dañoo daanu ba mu des fukki fukki fukki ak ak ñeent moo tolloog buur war a waaye ñoom ñëpp ndeysaan ba yonent bi génn àdduna fukki buur yëpp dee nañ ci jamonoy Umar ibn Xattaab rek moo moo moo toj dëkk ba jàpp buur ba tabaarakallaahu ba ci bukki fukkeelu buur ba ak ñeent maa la jaayu na mais nu ca juddu ga albaytu kaaba ga xaraam ba de bu ñu xormaal sururan ngir mbégte yàlla woo yéemal wa ardu suusa ba tey bi maanaa isdahat puukarewu na wa samaaw asamaan xam nga tabax bu ñu tabax muy jaayu a te màbbut loolu yombut waaye yonentu keroog ba mu juddoo kaaba gi danoon tëdd nday joor ak càmmooy di wax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah ngir bëgg li ko waral jàngoro dikkal na ko yiñ ko fa askane yëpp ci ay xiram ak ay bokkaale ñii di ko war a def awraay kese ndax ñoom dañu wax na yëre yi ñu sol di ci moo di ko daan ko fanaanoo di ci mooy yàlla duñ ko waree kaaba gi su ko defee nag léegi nag euh, euh, nag loolu kaaba gi nag bëgg na ku ko saafara ci lii moo tax nag moom tamit bi yonent bi juddoo moo gën a bég moo ko njëkk a yëg kontaan lool dégg nga moo tax mu wax lu dégg nga hmm, dégg nga mu ngoog asbaxa mujj na addiinu diina ja fis diyaati suróorin ci dolleeku mbégte waaye waxuwa moom dolleeku mbégte googu kurbatun njaqare la wa balaawu toskare la il tibaax lañ koy tuddee ci balaaxa Euh, mooy dafa indi ñaari safaan ñaari safaanoo maanaam keroog bi yonent bi juddoo mbégte la gu rëy rëy ci jullit ñi ci diine waaye nag naqar la wu rëy rëy ci kéeféer xam nga suróor ak kurba dañoo def mu kaabala waaw moo moo loolu lañ tuddee tibaak dégg nga wa badaa feeñ na saajidan mbir mu muy aji sujjóot li laa mawlaaw ñeel borom sukkuran ngir sant yàlla rafeexat tarfi mbir mu muy aji yëkkati pëtam pëtam ya xaagasaa naka nii la kat asfiyaaw ñu sell ña yonente ba mu juddoo rek li mu njëkk a def mooy sujjootal yàlla sant yàlla ngir loola su ko defee yëkkati bëtam ya teg ko ca kaw asamaan moo waral gis nga nit bu juddoo rek nga gis muy xool ci kaw yàgg-yàgg mbiram gën a kawe waaye koo gis muy judd rek xool ci suuf kooku ay mbir yu suufi rek la fiy def ba muy génn àdduna amin xaraja juddu na wala nga ne xaraja génn na Moustapha kuñ kuñ tànn ka aminu kuñ xóolu ka kuñ xóolu ka wali dan mbir mu muy aji juddoo fan taxta surati ci ron gi mbokku yaayam wakasa naka nii tamit al am na ci ñoo xam ne mu ngi juddoo ci seen jumbaxu yaay kon gis nga ko noonu koy firee mën ko dégg dégg nga <coughs> laaj nañ Cheikh na Tijaani radiallahu taala anhu ci yonantu bi fu juddoo mu ne mi ngi juddoo ci jumbaxu yaayam waaye moom juddoowut fi nit baaxoo juddoo waaye tamit am na ci ay yonantu yoo xam ne ñoom tamit ci seen ron jumbaxu yaay la ñu juddoo du ñàkk dañ la ci am ñu la nettali dégg nga loo teg jaa dikk na maqtuwa suratin di kuñ dog ab luttam huwa moom maxtuunun ku ñu làkk la mu muniirun aji leer la wa aynuhu bëtam ba tax laa wa aji tusngeelu la loolu daf koo juddoowaale sallallahu alayhi wa sallam amul dugal ko néegu góor amul dagg lu tubaab ñu naan néeg nii waaye moom fa juddoowaale yooyu yëpp fukki yonantoog ñaar lañ wax ne ñoo juddoo ñoom ci seen jumbaxu ndey fukki yonantoog ñaar yooya aadama moo ci jiitu yonantu yàlla siisa idrisa ak noox ak ak lut ak yuusuf ak muusa ak Shuaybu Yahya Hud Saalihu ci mujj nag ci fukk ak ñaar ya mooy Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yëpp nag dañoo juddowaale ak làkku dugg néegab góor ba mooy yonentu yàlla Ibrahim moo tax war a Ibrahima mooy ki dugg njëkk a dugg góor moo ko defal boppam ki ñu koy defal boppam am na juróom-ñetti fukki at sul si la rëngi rëggeef nag kaabatul ilaahi kaabaak yàlla ga salaasa ñetti fan it ata ba ko dikkalee moo ci tegu si shifaawu saafara min daa iddalaali ci jàngoroy réer kaaba gi moom bi nit ñi kontaane ci dugg ñu ne benn fan doy na feet ñaar moom ñetti fan la ko feet waaw ñetti fan muy jaayu di wax laa ilaaha illallaah muhammadu rasulullaah wa bi daalika nekk na ci loolu ruuxurun ak feeñ li am ri ñeen mbir wattilaaw ak xuñeeku keroog ba yonent bi gane see àdduna keroog rawxaan yi feeñ nañ ci la rawxaan commencé feeñ ba léegi nga teg léegi yore aw tur di ko sikkar ba ci kanam nga rawxaan feeñ ci njëkk loola kenn mënul gis rawxaan njëkk loolu rawaxaan mosul taxaw defal dana kenn waaye yonantooy ki njëkk a feeñal rawaxaan ci ak juddoom ci lañ xamee ne mbiram fokk mu tëj àdduna bi moo tax mu ne wataraa a feeñante na ruxaani yu na rawaxaan ya wa zalika nekk na ci loolu xuurun ak feeñ li am ri ñeel mbiram tilaaw ak wuññeeku armasuuhu nuural nañ ko fii xulqi kulli nabiyin ci jikkooy bépp yonantu li yaxuusa ngir na làq li si na nga xam ne xawaa làq na ko anbiyaaw yonantu yi moom nag eh, ab yonantu bu demee ba mat ba motti fi garaatam xam ci may keroog yonentu dafa judd rek ñu yëkkati garaat booba jox ko ko waaw keroog maanaam yonentu yàlla Ibrahima xaritoo xam nga dégg nga ni xam nga dégg nga ku mel ni ba mu juddoo rek nga dégg jox nañ ko jikko yonentu yàlla Adama jox nañ ko maarifata siisa jox nañ ko sajaata jox nañ ko maanaam xillata Ibrahim xaritoo yonentu yàlla Ibrahima ga ak maanaam xàmmee ak yonentu yàlla Siisa ga ak njàmbaar ak yonentu yàlla maanaam in ga jox nañ ko xarit ak yonentu yàlla Ibrahima ga ak làmmeñu yonentu yàlla Ismaayil ca Fafaaga ne bu daan jàng ak neex baat ga xam ne sax picc yi kii ak ngërëm ak yonentu yàlla Isxaaqa ga ni ko yàlla gërëma ndi daa Isxaaqa wa fasahat saalih fa maanaam fasaha yonentu yàlla saalih wa xikmata luut wa bushra yaquba wa shiddata Muusa wa sabru ayuba wa taatu yunus wa jihaadu yuusuf wa sawtu daawuda wa xubbu daaniyaan wa waqaaru Iliya wa ismatu Yaxya wa zuhdu Isa yëpp ñu jox ko ko te fekk mi ngi ci mi ngi ci laytaayam demaguñ fenn moo tax nag maam xalifa tofal ca ne axmasuhu nuural nañ ko fi xuluqi kulli nabin ju koy bépp yonantu li yaxaw sa ngir na làqal si la nga xam ne xawaa làq na ko anbiyaaw yonantu yi maam xalifa ne wa bi haada nekk na ci lii isharatun ak junji ne annahu naka moom xad yasaaw xal si naat daj nga koy firee al arda suuf àdduna wa maandoom nga wala wafaa ba naa la amee na badru tamaam weeru mat minu ci moom suruuxan ak jolli wa ataa dikkee na maanaam al misk misk sosaaw ak xet min sosaaw jëlee ko sa xet ak sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa rafet la dafa bëgg a wax ne wa sallam weeru mat bi mu amee fukki fan ak ñeent ci ko badru tamaam leeram gu jolli gu xéeme googu yonentoo ko ko xabal ko ko xabal toon doo am leer misk tamit xet gu neex ga mu am parfum bu yéeme bi yonentoo ko abal xet moo waral gis nga bu ko yaayam bootaan ba mu ñaq da daan dañ naan ëpp ñàkk wa ak fi mu doon nampé ci sayid halimatu saadiya di jël di ko jaay nit ñi te waa yow sa pare nga ci latu sang na ko xasalatu raxas na ko al amlaaku malaaka yi sabxan juróom-ñaari yoon wali sat lambaayaleef na fawqa taaha ci kaw yonantu bi xariiratu suwa muy soy bay baaw bay aji weex keroog bi mu juddoo fa juddu rek malaaka yi ñoo ko for sang ko juróom ñaari yoon ci juróom ñaari ndox yu wuutee bañ paree jël benn suwa boo xam ne bu weex la laxasalee ko ko comme ni ñu def liir yi sallallahu alayhi xatamu kas maanaam tamponel nañ ko nga koy firee bi xaatamin ci jaaro wa bi haada nekk na ci lii imaam ak junj ca kanam mais annahu naka moom xatmul anbiyaay mooy mottali yonantu yi dafa judd rek tamit tampon boobu ñuy defal yonantu yi ñu defal ko ko moom nag li mu ñoom yeneen yonantu yi dañ leen ko defal ci seen xóot xóotu mbaggam ndeyjoor yonantu bi ñu defal ko ko ci xóot xóotu mbaggam càmmooyam ndax foofu moo tolloo xol looloo tax moom seytaane amutoon fu muy mën a jaar ki jax-jaxal ko moo tax moom dund na ba génn xat nu waxuma la wax lu bon wala def ko waaye mosu koo xalaat sax euh, maam xalifa ne ay kawara a ko wër waaye ñu ne matul ñaar fukk nu mel nag warante ñu ne dafa mel ni bouton manto ñeen ñi dafa mel ni kaafu maam yàlla su ko defee waaye lu ci mun di am ña ngi ca bind ne laa ilaha illallah muhammadu rasulullah siriya muhammad fa innaka mansurun loolu lañ ca bind dégg nga wa xawaa na maa la nga xam ne xawaahu làq na ko kullu nabiin bépp yonantu waxu taw moom ba mu koy làq fil mahdi mi ngi ci laytaay sama maam ne inna zanaka lii lal xibaaw mooy may lépp luy ab yonantuy am ba ak motteem yonantu bi mu tolloo ci ak laytaayam lañ ko ko jox te léegi nag bés bu set weer wu ne at mu jot rek ñu yokkal ko ay garaat ak ay médaille di ko takkal fépp foo xam ne ab yonantu fa la xemalam fa la fa mayam xem moom ci ak lay taayam la la la xegg foofa mu ne masxarun puukare de fii yebbi rabii nekk na ci fukki fan ak ñaar ci weeru gàmm ndax ci weer woowu ataala dikkal sun tedd nga wa baxijatun ak taar wa baawoog taar ñett ñi ñëpp dikkal nag anaasa nit ñi mooy ne ci weeru gàmm ci fukki fan yaak ñaar ci la tedd nga ñëwal nit ñi ci la taar ñëwal nit ñi ci la leer tamit ñëwal nit ñi sallallahu alayhi awalul qawli njëlbeen nag wax minu ci yonantu bi an kabbara mooy ba mu màggal laaha yàlla wasaani takbiiri ñaareelu kabbaar minu ci moom sanaaw mooy tagg yàlla maanaam bi mu juddoo lim njëkk a wax mooy allahu akbar li mu ñaareelee mooy laa ilaha illa allah kon ñaar yi moom la mooy bàkk yàlla ak tagg ko rek bu jooyaat nag léeg-léeg kenn du wàcc di ko nax lu dul weer wi maam xalifa ne wayu naa xii daana foxee ko albadru weer wi mu nirowu leer wa sa bi yan mbir mu muy xare wayu naa xii daana kaf ak moom di ko bàmbaane ka yeesu la ngir na dañ bu kaawu jooya mu naaxaat mooy bu ñuy xal naqale noonu nag moo tax mu ne daf comme juddoo bu masaana jooy rek weer weey wàcc ci kaw ñëw fekk ko di ko nax te xam nga xale lu mu jafe-jafe boo ne ko xoolal weer wi sax rek mu noppi yonentu bi nag ne ko yow duñ la wax xoolal weer waaye weer waa lay xool xabaas moo ko njëkk a bett fekk weer wi di ko foyee ci la xabaas ne xaw ma kan waaye kii buy màgg rek dana woote mbir waaye man bu wootee diine rek ma fekk si ko sallallahu alayhi wa dégg ko de maam xalifa ne mawlidun moom de juddu la xafafa xoyafal na alazaba mbugal xanil ammi walis bàyyi tax ma abi lahabin kooku moom mooy ki nga xam ne daawu xoo na ko saqaaw ak texe xadi yonent bi juddoom gi juddu la goo xam ne dafay waral ñi oyofal mbugal ci bàyyi taxam ba abi lahab xisa lay junj bu mag li ko waral xam nga abi lahab li muy bañ bañ yonantu bi da koo dab waaye juddoohut ko ndax bi yonantu bi juddoo moo ko gënoon a bëgg sonn ci lool yonantu bi màgg nekk xale mu bëgg ko lool sopp ko lool moo tax moom cofeelam ci yonantu bi moo ko njëkk a firndeel keroog ba yonantu bi juddoo ca bis ba benn jaamam bu ñu tuddee suway batu ñëw ne ko ah, abi lahab sama sang sa doomi mbokk ma am na doom sa mbokk ma kon am na doom di abdallahi ngeen bokk benn ndey ak benn baay doom ji mu am sax góor la te xam nga arab yàllaa leen naxtu ci bëgg doom ji góor wa ida bushira ahaduhum bil unga xalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadib waaye bu ñu amee doom ju jigéen la dañuy konta mu ñëw nag wax ko ko rek mu ne ko yow de doom ji nga bëggal ma bëgg naa ci te bis ni ki tey xibaar bi xaw ma kan waaye yow goreel naa la ah léegi nag mu goreel ko yonentu bi dama am ñeen fukki at ñu yónni ko mu woote mbir rek abi lahab gën koo noonu ci nit ñi moo taxoon keroog ba muy woo baaj mbokkam ya yàlla ne ko wa anzir ashiratakal aqrabina bàjjen yaa gi dañu ku la neex wal waaye bu ci boole Abi Lahab mu ne foog ba mu ñëwee moo ne ko woon tabban laka alihada jamaatana saayiral yow mi mu ne leen waaw yéen su ma leen waxoon am na ay soldaar yu yore ay fas yore ay ngànnaay ñëw di songu dëkk bi ndax da ngeen ko gëm ñu ne ko ah kay yow mosoo ñu wax luñ jëw gisul di ñoo ko bañ ba tuddee daal aminu mu ne kon anqidu arwahakum xettali leen seen roox yi ci safara su ngeen ma gëmee gën a tedd ci nit ñi àdduna ak laqira su ngeen ma weddee gën a torox léegi nag abi lahab ne ko toskare ñaal na la ni bis seeree ci réewam taax rawatina màkka nga begele ju amoo dara la ñu wax ne yàllaa ma yoon yónni su ko defee nag léegi nag yàlla ne ko yow bul fayantoo maa lay fayul moo tax boo setee saar yi dend ak tabat yëpp am na xul xul mooy firi waxal yóbbante la yàlla ne saagaaw baay man du ma ko yóbbante doom maay waxal sama bopp rek ne na torox yeddi yeddaa abi lahab jëmmi abi lahab ji yëpp ñaari loxo yi la tudd waaye jëmu jëmee ci nam waaye warta ba torox na sa arab day waxee noonu ba saar wa su ko defee tamit keroog ba muy génn àdduna moom abi lahab ca badar dafa waxoon waa de koy jekkali ko may ma ñaari baat fii may bàyyeekoo ci àdduna muhammad laa ci gën a bañ ma jëm nii tey ñu ma fay fekk ñëpp muhammad laa ci gën a bañ man nga maa ray nag di nga yëkkati jaaseen gi ne waaye sa jaas yi nga yore mënun maa ray kaay ma joxoo sama jaas jaaseen ja la ko waaye gis nga maam xalifa ne li muy bañ bañ yonantu bi ba wax loolu ak fi mu jaar bisu gàmm bu jotee rek dañ koy génnee safara di balal soow ci baaraamam yi mu koy màcc ñi laaj ko lu tax mu def loolu mu ne moo lebaloon soow ci juddoog yonantu bi ndax moo ci goreloon ab jaamam mu joxe woon soow di suway bëtu yàlla nag du pertal kenn inna laa laa yudi ajral muhsinin moo waral nag lam ci goreloon doomam euh, maanaam jaamam moo waral bisu gàmm gu jën ñi goreel ko moom tamit ci safara soow moom doomam soowam ba jaamam ba joxe woon ba tax mu bég moom tamit mi ngi ñu koy jox soow ci baaraamam mu koy macc moo tax ku ne gàmmu biddaa la abi lahab moom d'accord ci moom yàkkamti na ko <laughs> danaay wax loolu ci moo tax mu ne mawlidun ak juddu la xafafa woyofal na alxasaaba bugal xanil ammi walis bàyyi tëx ma abi lahabin abi lahab boo ko xamul man mooy ki nga xam ne taxaawu xoona ko asaqaawu texee di texee dee ko mu wuy ji ko maam xalifa ne fa bi taxdimihi aji nekk la ci màggal juddoog yonantu bi amaanun kóolute mooy sécurité bi talaami ci mi at wa busra ak mbégte bi talaami ci mi at atat dikkee ne bihaa ci loolu an baaw solo yi mu ne yonantu bi képp ku ko màggal tàntal ko te yàlla tax nga màggal juddoom nga at mi yëpp booye bone yow dagg nga sa assurance tout risque dara du la dal yàlla la koy assuré tànk du métti bopp du metti nopp du metti dara ñaareel ba tamit mbégte rek ngay takkoo ci at mi da nga dolleeku ba yëg n yokk sallallahu alayhi wa sallam boo gisee mag ñi tey duñ fay mukk tur yonent yu ñu doon jéem a yëkkati rek la moo tax tamit duñ fay mukk ba yowmal qiyaam ku leen jéem a fay fay fi nit ñëwee sonn dañoo wutal yonent bis rek fàtte su ko defee moo tax bañ génnee àdduna kenn ko ne ñu wutal la bis ñoo ko leble woon lii tamit day junj benn xisa dañuy waxoon ne benn kii dafa amoon benn buur dundam lépp benn doom ju jigéen la ko ci yàlla nattu moom la am mu am benn xale bu góor boo xam ne dundam lépp dawal fas la ko yàlla nattu muy xëy di dawal façon bi rek tombeeg doomi buur bay permanent rek mu dal ci kaw mu dee yaakaar naa ku rey doomi buur yoo xam benn la ci yaayam ak baayam am nga problème gaa yi dem ci buur bi wax ko ko mu ne na am ñu dem jëlile ma ko waaye na am ñu ma xalaatal xeeti mbugal yi bu ci gën a métti ñeen ngi ne ko xanaa bu ñëwee dangay dagg cër par cër ñeen ngi ne da ngay jël ay puso di ko tàngal di ko jam ci ay sofe-sofeem diggante baaraamam yàgg ci ay awraam mu na ñëw rek ñenn ñi nag dañ koy indi di ko wéq di dóor di pes mu tàbbal ci xelam mi ne su ma yàlla génnee ci xat-xat bii juddoog xam a fekk ma ci kaw suuf lu ma xam lépp naa ko ci def màggalee ko am xalifa ngees nee na ba mu dugal loola ca xolam ba rek ca xelam ma rek la yàlla dugal ca xolab buur ba yërmandi ak cofeel mu sopp ko nu raw nam soppee woon doomam ji ba seen bët yooyu ñeent rek mu jug rek fóon ko akolaat ko toogloo ko ci feggam ne ko jéggal naa la de waaye foog nga wax ma loo ma def ban xeeti njabar nga ma njabar mu ne ko man de benn njabar deful ma ko man daal bi nga may door di wéq wax naa ne xat-xat bi su ma ci génnee lu ma xamante dinaa ko màggalee juddug Seydunaa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye yow njabar yëpp ci gën a ne ko naa la dimbale ci bis boobu junney gëlëm junney nag junney xar junney béy junney ganaar ak junney libidoor yëkkati lépp jox ko ko ne bàyyi leen ko mu dem moo tax maam xalifa ni bi temps aji nekk la ca màggal juddu ga amaanun sécurité bisal ami wa bushra ak mbégte bisal ami atat dikkee na an baaw soley bihaa ci loolu léegi nag euh, bàyyi na wax jooja mi ngi bëgg a jàngale ngénteeg Seyduna Muhammad te xew ci ngénte la noonu na benn bay ci rek la moo tax mu ne baabun fi xaqiqatihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne xoqa ngénteef na xanu ci Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bi saabi an ci bisab juróom ñaareel ba ku ko ngénte Shaybatul Hamdi borom bi jaaw buy sant ba mooy maamam Abdul Muttalib lu mu ko ngénte bi saatin ci gàtt xar kuy mu weex kamaa xakaa comme naka nettalee xodamaaw ñu jiituñu keroog ba mu juddoo bis ba dellu si la baayam Abdul Muttalib jàllar bi ku dem jënd am xar mu mag raaya ko ko tuddee ko ne tuddee naa ko Muhammad màkk gi yëpp dal ci kawam ne ko kuy ma luy Muhammad lu tax nga tuddee ko ko mun dama ko tuddee bëgg waa asamaan ak suuf yëpp sant ko waaye xam nga yaa arab yi liñ baaxoo woon ku ci am doom tuddee ko turu ñàng mel ni xar bu moo tax ñu tuddee ko Abu Sufyaan ñu tuddee leen naaru ji fi safara ak ñi sayfu jabalu léegi nag gàn nga ñoom rek ak njàmbaar ku ci am doom bu fekkee ku ci am jaam tuddee ko tuddee ko turu rafet hmm. gàn nga ci boo lëgee boo koy jaay mu gaaw a jar hmm. yonent bi nag mooy ki njëkk a ki njëkk a dajji xaada jooju ci ñoom fa judd rek ñu tuddee ko tur wu rafet koo teg moo tax mu ne bunt bi mooy buntab ñi nàmpal yonent bi sallallahu alayhi wa nàmpal na ko suway ba tun suway ba jaam la moom laa la wax mooy jaami abi lahab boobu nga xam ne ci la abi lahab goroon kontaanoon ba goreel ko moo ko njëkk a goreel moo ko njëkk nàmpal baax da ummin gannaaw yaay ñenn ñi ne yaayam fukki fan ak benn la ko nàmpal door ñu door koo yóbbu ci sax saadiya waaye yaayam daal bi mu ko njëkkee mosal soowam ma ki ko ñaaree la nàmpal ci nit ñi mooy suway batu maam xalifa ne waxan ni an danaa ndokkeel ak ndokkeel dégg nga li hunaa ci lii bisaaka sanaaw ci boobale tàgg ngir lii bisaa ka sanaaw ci woyle tàgg ah dara mënta passé tàgg ne maa njëkk nàmpal yonent bi gannaaw yaayam loolu doy na tàgg baxda haas yi gannaaw suway batu mii xalimatun xalima ardaxadu nàmpal na ko xalima mii boo ko xamut mafxarun tuukare ñeel na ko goo xam ne laa tanaaluhu amut ko rudaahu way nàmpal ya ndax moom ni nag yàggee yonent bi ak lim ci am kenn amut ko ci bul fàtte ne moo ko yóbbu ci àllam ba yéegaloon ko ca mbaamam ma ndax màkk dañoo baaxoo woon ci aaday arab ku am doom ci dëkkab teeru doo ko nàmpal da ko yóbbu ci àll ba mu yaroo fa ndax dañuy wax ne ñu dëkk ci àll bi ñoo gën a dégg langue arab bu baax al arabiyatul fusha ñaareel bi ñu ñu ci àll bi ñoo gën a am fit ñaareel bi ñu dëkk ci àll bi ñoo gën a dëggu duñ fen duñ tappale ñetteel bi ñu dëgg ci àll bi ñoo ñoo gën a baax ci ak yar ndax bu jaxasoo amee rek piir dootul amati léegi nag moo taxoon ku am doom rek yóbbu ko ci àll ba yonent bi nag ba juddu tombeeg mi bàyyeekoo ci àll ba ñëw di ut kuñ nàmpal ah maamam ne leen ab liira fi nekk de bëgg nañ ko ko nàmpal waaye nag waaye nag moom mm, ah, ab baayam dundut jirim la naam nàmpal ne ah doomi jirim di ku ko nàmpal bu sa fay matee tamit doo am buña te ñoom lañ leen daan neexal la moo ëpp seen fay ndax nit dafa bëgg doomam léegi ku ñëw rek bu ñu la proposé loolu rek nga bàyyi ko fa ko xalimatu mi tamit moromam yëpp ba ñuy ñëw di ci kuñ nàmpal gëléem lañ war moom kenn ngir ñàkk ga mu ngi war mbaam mu làpp ndeysaanam fu mu dem tamit ñu ne ah borom mbaam mi de ñun duñ ko jox suñ doom gis nga yàlla nag loo xeeb mu yëkkati ko yàlla boole ñaar ñuñ xeeb mi génnee ci barke boo xam ne ci la àdduna bi yëpp di xettali ko maanaam yonentu bi xeeb nañ ko ngir jirimam nga xalimatu xeeb nañ ko ngir mbaamam ma xalimatu sax njëkk naa dem fu ne fu mu dem kenn nangut koo jox mu door a wax nag jëkkër ji euh, ne ko ah, man de benn kii rek lañ ma nangoo jox benn jirim mu ne ko demal ñu daan tànn ci sens rek moo gën yóbbuwaale moo gën yóbbu loxoy neen ba mu ñëwee ba nangu koo jël ba ñu muri yonent bi rek leer ga dafa frappé plafond bi la nu mu gis la toj kenn xamul fu mu yem ci kaw a asamaan maam xalifa nee na ba mu ko yégalee ca mbaamam ba muy ñibbi moo doon xaaraate waaye ba muy ñëw moom lañ doon xaar mu ko yóbbee këram kër ga naat gàttan ya suur ba waa dëkk ba mujj di ko seen sàmm ya nee na waaw yéen fii sàmmab xalimatu bi di sàmme ji mënu leen faa yóbbu seen gàtt yi ñu ne akay ah, dañuy dem waaye buñu demee duñ gis dara ndeke lépp barke Seydina Muhammad bi la nga de moo tax mu ne su ma saadiyatun topp jigéen koo xam ne ku jug saadiya la siwaaha ku dul xalima am na beneen jigéen gu ñu tuddee xalima mu bokk ci banni saad comme na ci xalima bokkee moom mooma tamit nàmpal na ko comme ni ko xalima bokkee kon ñaari jigéen ñu tudd xalima ko nàmpal waxu dat limeef na xawlatu ndaw suñu tuddee xawlatu nàmpal na ko fii maa ci la nga xam ne axbara solo na ko an baawu solo yi soo suñu tuddee maanaam kii tamit solo na ko dégg nga nàmpal na ko kon ñii ñooñu nga xam ne bokk nañ ci nàmpal sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam am na ñeenti janq yoo xam ne nàmpal nañ ko dañ ko doon café rek seen ween yi amuñ soow waaye nag maam xalifa fa na yonum tudd yaakaar fenn dara yàlla di ko tas moo tax mu ne wasëdd ab abkaar yi weeni jànq ya darat wasal na àllee ci yonumtu bi mislama darat comme naka la wasalee chatuhoo gàttam ba aji faaw bay aji lompañ mi ngi ñu ne xisa bu gudd ba muy dem di gër gàddaay yi ci umu maabat ba yegg foofa ne leen ndax amu leen soow ñu ne ko waa ah benn gàtt fi nekk de tëli moo ko tëli maanaam tëli moo ko tëlee maanaam wutti mënu dara dafa màgg du màgget boole ko feebar waaye nag bu ñu xamoon soow may la ti bi ne ko bu ngeen ma joxee ndigal ma ratt gàtt bi mën ngaa ratt gàtt bi te xam ne amul doom ànd ak ni mu feebaree maam xalifa ne bi mu jëlee loxoom ya laay ko ca batt ba rek mu fees tepp mu ratt jox gaa yi ñi naa ratt door naan moom door a wax xadisam boobu ne saaqi naasi axiruhum shurban kuy nàndal nit ñi yaa war a mujj naan ndax taat ba këll ya fees bu bàyyi ko waa kër ga abu mahbat ba mu ñëwee rek abu mahbat wax bu ko rek ci la dab yonent bi ci yoonu maanaam madina bi moom tuub ci yoon wax ni kii dégg naa ay mbiram léegi nag mu ne kon weeni jànq ya génne nañ soow te ñooñu amuñ doom comme ni gàtt bii nga xam ne amutoon doom boo léegi feebar ak màgget maanaam génnee soow hmm. dafa leen comparé ñoom ñaar dégg nga ak sabat naatal na arduha xalima wadarat wasal na alay ci moom ga dégg nga saaw gàtt ya mooy faa'il ji ba'da juhdin gannaaw ak beekoon min samaani ci jamaa xalima gënoon a ñàkk yorul yorul ku yow gàttam ya gënoon a làpp bañ na ko ba mbaam la waroon waaye mujj gi jeexalu dara keroog moom gàddu la yonantu bi ñam rek ci la ko yàlla garantul koom kom xaal àdduna te bu dee tamit dem aljana ma Seex Tijaani laaj nañ ko mu ne ñi nàmpal yonantu bi yëpp ay jigéen yu laab lañ yàlla leen yenke wala ngëm ndax yonent bi di dund ci lu lu sobe comme ni yàlla yenke walee ngëm ay maamam di ko doree ci aadama fu deret ji jaar leer gi ba ci abdullahi ba ci sayyidatuna amina kon xamul kenn ku dul ku ci nekkul jaamu yàlla bu nangoo jaamu yàlla waaye moom du dundee ci lu luy sobeeku dégg nga maam xalifa ñu jàngal ñi beeg mbaam ma war a waaxul ataani gontug mbaam mu jigéen ma tawaana doxadal na xanu walis ko fii ma daxaa ca lefe ma na amatu banjooli xar jaaw bay aji pitti panta mu ne mbaam ma ba muy ñibbi rab yëpp di daw baa ci gën a gaaw baa bi ci gën a gaaw mooy bu pitti pant ba mu ne keroog bu toppoon mbaamam xalimatu bu seen pëndëm ba ngir lim teg yonantu yàlla Muhammad ci kawam te xoolal ba mu doon ñëw dañ ko doon xaar <laughs> sallallahu alayhi wa sallam faaxati bonni na al ardu suusa xëy na jaa ba mu dikkee bi arfin la ci duuna woo xees na ko misk gët ak misk wasosa ak maanaam las ko lañ wala kibaaw ak cuuraay bi yonentu bi ne carax ca kër naa xalima la wër la wër kër xalima yépp ci doxam ñeenti kilomètre ba lu ko ëpp foofa taxaw rek xet ak parfum bi maanaam bon bonni ci sa yére yi bonni ci sa ci sa say bakkan te loolu xet la goo xam ne yonentoo ko fa indi xaale sallallahu alayhi wa waxoon naa la démb ne ñaqam wa sax la daan ratt di ko jaay lu ne am na ko ci moo tax mu wax dégg léegi nag mi ngi bëgg a wax nam doon màggee mu ne saara mujj na yat mu di màgg fii kulli yawmin ci bépp bis nu mu woon ak màgg màgg goo xam ne maa namatu màggut ko fityaanu fero ya wal asbiyaawu xale ya nam doon màggee benn xale mosut koo màggee ñu ne ko waaw mosal ñu ci mu ne is ngir xabaar raam na fi sëx rëy ni ci ñaari weeram xabwan ak raam sariyaan bu gaaw ñaari weer nga raam mos nga dégg loola inna xabwal amini naka raam kuñ hóolu kii di sayduna sama maam nee na la huwa moom alxibaaw mooy may may dëgg la xasru la moom rek kay may ramsu jiimin du njëg jiim nga te mooy ñetti weer a taxawee na ci almusafaxu ku ñu ramuloo mbindeefi fii ci moom ñetti weer la am mën a taxaw taxawaayam yàngaar loolu xam nga jafe na sunti saabin borom ak samp ga taxaw ba dëgër nag nga xam ne boo téye du daanu boo téye du daanu fii daal daalihi aji nekk la ci daala mooy ñeenti weeram ya waaye almas yu dox ba waaye doxa benn tànk di di seqee ka dëgër dëgërlu xaawu juróomi weer la cey sama maam xalifa musrixun aji gaaw la masihoo doxam ba bi xaa i suhóorin ci juróom ñetti weer loolu la bi xaa i suhóorin la dafa rek xilaala suhóorin juróom ñetti weer ci la yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam dox ba gaaw boo téye mu dem boo téyewul mu dem waaye ngay wax ca kanam ne yar musu doon a junji taaw juróom-ñeenti weer lil kalaami ñeel wax ji fas yi ju fasaaja juróom-ñeenti weer ba ko amee rek ci la mën a wax ba bu waxee doo wax mu wax wala ku wax xasratun fukki weer xat yar mii lay sànni ci xaama fett ya ba ma amee fukki weer ci la commencé bu sànnee fett waxambaane fanweeri at sànni yonentu bi moo lay gën a xiirale moo lay gën a juble waxaarat gëlëm na xoqalaawu ñu xeluña min aajibi ram yi ci kéemtaanu sànnim ga maanaam daal ba ñu xam xel ñëpp mujj xéemu ci sànnim yu xéemu yooya sallallahu alayhi wa sallam fukki weer rek la am amagul xat ba tey di te lii ñu koy def sallallahu alayhi lii nag buntu la boo xam ne day jàngale xotti gi ñu xotti dënëb sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi shaqi sadrihi sallallahu alayhi wa sallam maam xalifa nee na wa bi shahray ni ci ñaari weer baxda amay ni gannaaw ñaari xat suqa la xotti sadru dënëb mi nu ci almalaykatu malayka almalayku malayka yi kuramaaw ñu tedd ña bi mu xamee ñaari xat ñaari weer ci la ñu xar dënn ba ah, su ko defee nag booba ma ngay nàmp ci xalimatu saadiya dafa dagg xisa bi nag moom dafa xëyoon rek xalima da koo fonkoon mos na nangu mu génn yonent bi daan génn kër ga benn bis mu xëy la téye xet foo jëm mu ne ko damay sàmmi sama maam Ibrahima sàmm la woon sama maam Moussa sàmm la woon kon man damay sàmmi xalima wax wax mu ne dana dem mu dem rek ànd ak xale ya rek ca gàtt ya bañ demee ba ci àll ba rek yàlla xebal malaaka yi ñu soppeeku melaw till ndax malaaka moom safaanab jinne la jinne mën naa soppeeku lu laab ak lu laabut malaaka nag lu laab rek la mën a soppi te lépp luy dundu rek laab na kullu xayin tahiru léegi nag bañ ñëwee xale yépp daw ñu ne jàpp nañ xale maanaam ba ni Hashim ba daw di ko wax xalimatu ak jëkkër ja ci lañ nag ñoom ba ñu demee rek ñu nekkaat lañ nekk yore melaw nit nag ñu ne kii la kii la tëral yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam la nga yore ak kastoor ñu dale ki saatu xol ba ba pare xar ko génnee ci lumb wu ñuul ko raxas ko kastewaat ko boo ñëwee doo ñëw maanaam doo gis maanaam métital ga amul métital ci moom yëgu ko waaye ñaareel ba tamit amul jeexital opération hmm. foofu na yaakaar naa médecin yegguñ ci hmm. ñoom buñ manee tamit wax dëgg yàlla pikiir la ba doo yëg opération bi maanaam foog mu am jeexital hmm. sallallahu alayhi wa sallam nag léegi jub euh, xalimatu dajeeg moom ak euh, maanaam jëkkër ji xaaris lan la lan la mun leen gisuma dara nangam ak nangam waxu wax mun leen dara fekk iñaan mooy waral rëy mooy waral bëgg àdduna mooy waral xëccoo ndomba tànk ak daraja moo war la yonent bi jaarul ci loola dund na ba génn àdduna mustaqilaat lu bon waxuma la di ko wax la mu koy def léegi nag ci la nag euh, kii tiit xalima euh, tiit nag jëkkër gi ne ko kii boo ko yóbbu dañ ci am gàcca ci la dem nag fekk sax boo feral nañ ko noona bees euh, moom ñu gis ne xiir na ci moom bëgg na ko fekk boobu màkkaa ngi am feebaru ngas ak yu mel noona maamam Abdul Mutalib ko yóbbaat ko ci àll ba yàggul mu ñëw waxaat ko lii mu ne ko ay demal nga toog suñ doom ji jinne yi ñoo koy muslu waaye moom duut koy muslu ki jinne demal nga ñibbi kenn du dara ko laal ah, kon gis nga malaaka day soppeeku lu laab moo tax yonent bi gis nga bu ko daan jibril di ñëw day solo melaw nit li gën a bëri buur bu ñaan te ne dexiitul kale mi la daan soppeeku jinne nag moom day soppeeku lu laab ak lu laabut li gën a bëri ci lu jinne soppeeku mooy xaj ak jaan te yonentu baa ngi wax ne bu ngeen demee Madina sax fekk fa jaan bu leen ko rey lu dul ngeen diisu ko ñetti fan comme ni nga ko jàngee ci risaala dañuy sum sol mbubbam jaan dem di siyaara ji yonentu yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dégg nga de suma maam ne xatamoohu kaste nañ ko bi xaatamin ci tampo waxasawu feesal nañ ko xikman xam-xamu njariñ boo xam ne laa tanaaluha du ko xam xukkamaaw borom xam-xamu njariñ dañ pare feesal nañ ci ay asraar feesal ci ay mbóot ak ay secret yoo xam ne duhut lu ñuy wax duhut lu ñu mën a bind ci téere bi mm-hmm. suqa xotteef na sadru nabi dëll sayduna muhammad arba'a maraatin ñeenti yoon xakkaa xaajati na ko fi siira ci siira xodamaaw ñu la neexee tamit nga ne saqu sadru nabi xotteeg dënn sayduna muhammad mm-hmm. am na arba'a maraatin ñeenti yoon la xakkaa xaajati na ko fi siira ci siira xodamaaw ñu jiituña loo ci wax way du damm mm-hmm. su ko defee nag ñeenti yoon lañ ko mos xotti boo demee ci ñeneen ñëpp ñoom ñett lañ wax alaaji Malick boo demee ci xilaasam bi ñett la wax maamu xalifa moom moo ñu ne ñeent la mooy ne bi mu amee ñaari xat ak ñaari weer xotti nañ ko génne ci cërëb seytaane ak li ci aju bi mu amee fukki xat xotti nañ ko mu ne moo waral jaarul ci doxal ak waxambaane bi mu amee ñeent fukki ñu war koo yónni xotti nañ ko ngir mu attan leer ak lu boobu bi mu demee bañ koy war a rañaani mu am juróom fukki xat ak ñett xotti nañ ko ngir mu mën a attan leeral nu boo gi mm-hmm. salaam juróom fukki at rek la sax juróom fukki at ci lañ ko xotti mu tolloo ci dundam moo sax màkk ñetti at mu juróom fukki di julli dem Madina am fa fukki at muy juróom benn fukki at ak ñett mu génn àdduna kon ñeenti yoon yi ci lañu xotti dundam bi sallallahu alayhi wa sallam léegi na rudda delloos na ko lil ummi ca yaay ja ama xamsin xatam juróom wa minhum aji tukkeekoo la ci ñoom mooy xalima toog mbokkam ya mu def leen taxliib rek notal góor ña ca jigéen ña tukkeekoo na ci ñoom safratun xajjat wa bukkaawoog jooy saata raddi ci waxtu delloo wa keroog da bañ koy delloo ñu ngi jooy rek ndeysaanam ndax bu ñu mën a teqalikoog moom waaye nag nàmpalal ma rek mu am ci yow juróomi at wax dëgg yàlla na nag <laughs> wax dëgg nag nag doomi jàmbur ci mënu koo nangu sama maam ne lu tax ñu delloo ko mu ne xiina xaafoo waxtu wañ ragalee minal junoon ci sa sabdu june xale ci Muhammad maam xalifa ne walahu aji nekk la ñeel ko roqabaawu fuglu min rabbil war a bàyyi ko ci borom mbindeef kii yàllaa koy wattu bu ngeen xiboo ngeen dem mu ngoog dégg nga hmm, dégg moo tax benn shaacir way nii ne laqad balagat bil hashimiyi xalimatun maqaaman ala fi darwati al izzi wal majdi mu ne xalima jëlee na ci yar gi yar yonantu bi nàmpal gi mu ko maqaama boo xam ne moo gën a kawe ju loxtoon doj waaw li ma xam mënu ko wax dégg léegi nag euh, yonantoo ngoog sallallahu ba mu ñëwee ba koy delloo ci ndeysaanam nag lu ne mu wax nag xalimatu nag bu ko daan bu ko daan dégg nga dégg nga euh, euh, euh, dégg nga nga dégg nga ndeysaan da daan way lii bu bu daan sëggal yonantu bi danga dégg mu naan yow yàlla xale bii nga jox ñu yàlla nga ko fi desal bu mu dee bu mu bu mu dee ci ndaw yàlla nga kaweel ay mbiram mu jëm kaw waaye yàlla nga ko yéege mm-hmm. ndeysaanam yàlla nga neena leen neen ay caaxaan ci moom mm-hmm. mu nekk koo xam ne mooy ki yëkkati dëgg di ko di ko di ko di ko kaweel mm-hmm. su ko defee loolu daan wax ndeysaanam wa qaala wa kaanati shaymaawu wa hiya uxtuhu min shaymaawu mbokkam la woon ci nàmpale moo daan wax li hada gulaamun lam talidhu ummi wa laysa min nasli abi wa ammi fadathu min muxawalin muammamin muamman dégg nga fa atimhu llahuma fii ma tanmi mu ne kii xale de sama yaay jurut ko waaye aka dégg nga bokkut ci sama ngirteel baay ak sama ngirteel baay tax waaye yàlla na naa ko samay nijaay faddaytuhu la njotee naa ko samay nijaay ak samay baay tax yàlla nga ko màggal yow yàlla mu nekk koo xam ne day dooleeku toujours